ci nuyoo boobu ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Xadim di Cheikh Muhammadul Muntaqa xafidahullahu wa raahu waaye it di ko ñaanal sun boroom tabaaraka wa taala naal bi nga xam ne amee na ko ci liggéeyal Cheikhul Xadim sun boroom ba mu mat sëkk ànd ko mbooleem jabootu Seexul Xadim bi yépp waaye it duñu dañit di nuyu ñi nga xam ne walla ki nga xam ne moom moo fi nekkal sëriñ ma Masamba di sëriñ Moustapha waaye it di nuyu sëriñ Cheikh ibnu sëriñ Moodu Faati Xari mi nga xam ne moom lañu fekk ci fii mbokk yi comme ni ñu xamee rek de jotaay bi day jotaay bu am solo boo xam ne nii ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di sëti ma Masamba yi di ko organiser nga xam ne ñoom lañuy tuddee académie ya daarul karim al mahrusa waaye nag seen hadaf moom mooy xifd al turaas al islaami wa nasri saqafatihi mbokk yi kon nañu xam ne jotaay yi daan nañ ko faral di ame ñu amewoon woon ko bii jàll tey ñu ñëwaat di ko defee fii ci daarul karim ah, tey ñu ñëwaat nag ci beneen thème boo xam ne nii dafa bokk ci thème yi nga xam ne it thème yi am solo lool yoo xam ne nii war nañ di ko jàllale euh, waaye balaa booba it ki nga xam ne moo war a jàllale thème bi féete ma nii sama ndeyjoor wala sama càmmoñ ñi di ko wax sëriñ seexu naa Buso sëriñ naa Buso nag di doomi sëriñ Siidi Buso Mulaay sëriñ Moulay di doomi sëriñ Mbàkke Buso moom moo toog nii war ñoo defal lenn ci thème yi nga xam ne mbokk yi tànn nañ ko ngir ñu war koo jàllale fii sëriñ Seexuna mii nag ay jaar-jaaram daanaka mënees na koo tënk ci lu gàtt ne dafa jaar fi nga xam ne foofa la ñuy jaarale ab doomi jullit wala foofee nga xam ne fa la ñuy jaarale koo xam ne nii war naa nekk ab leader jànge alquranul karim mokkal ko lool ba noppi it nekk ci ronu suufu baayam mu di ko jàngal jàngal ko mbooleem téere xam-xam yi yépp mu daal fay jóge daal di dem misra ñu di ko wax ci jaamia bu siiw boobee ñuy wax jaamiatul azhar foofee fa la jàngee mbooleem téere yu bare bare bare bari ba mën nañoo wax ne am na lijaasa bu ñuy wax wala fi mu ne mi ci inscription doctorat ah, lijaasa licence ay kon moom la amee kon loolu mbir la moo xam ne nii li tax académie daarul karim tànn ko mooy xam nañ ne lii nga xam ne ñu ngi ko koy jox mën na koo doxal bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom nag mu dëgëral ko lool te kàttanal ko nga xam ne moom la war a waxtaane nag moom la ñuy wax ahamiyatu fiqhul fiqhil muamalat loolu nekk lu am solo loo xam ne dina cee war di bàyyee xel bu baax a baax a baax ndaxte xam nga fiq ñu bare bare bari dañuy jàppe bu ñu tuddee fiq rek fiq li ibaadaat la ay salaat ay ay ay sawm ay xaj yooyu ay ramadan yooyu la defe ne moom mooy fiq te fekk ne lislaam dafa pare ci bépp côté ndaxte lan dafa indi ci àdduna ngir ñu dund waaye ci dundinu àdduna bi ci boppam ci la ñuy mën a faxe ba jaare ba def li nga xam ne moom la sunu boroom bëgg ci ñun te moom mooy wa ma umiru illa li yaabudu kon loolu lu am solo la waaye it lu yaatu la loo xam ne nii dañ ci jël ñaar benn nuqta ci biir fiqhul muamalat ahamiyatuhu googu ñu di ko wax al bay' wa shira muy jaay ak jënd loolu moom la sëriñ Seexuna Buso war a waxtaane ak ñun fii ci daarul karim bu ko defee ñu maa si diglu ko bi isnillahi taala mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax ci weeru koru tedd bi jiital ci nuyoo bi comme ni ko sëñ Xaadim waxee rek kilifa dëkk bi nga xam ne mooy sëñ Cheikh Mbakke moom sëñ Modou Fati Xali ak mboolem ñi nga xamante ne si ñoo koy ñoo ñoo fi nekk di ko ci di ko jàppale yépp gannaaw ba ñu nuyoo sëñ ma Massamba bi nga xam ne mooy xalifa sëñ Massamba gannaaw loolu ñoo ngi am mbégte lool ci dikk yi ñu dikk ci dëkk bu barkeel di dëkkub Daarul Karim nga xam ne fu ñu ko tuddee rek xel yi dem ci ñaari jëmm yu mag yooyu ñu tudd ci yoonu mu sëñ Massamba ak sëñ Moodu Faati Xari yal na yàlla dolli seen leer waxtaan wi nag ñun néew nañ ci kàttan lool xaj na li tax ñu sàkk ko ci ñun rek mooy fedd li kóllëre léegi nuróol kóllëre gi doxoon diggante sëñ Mbàkke Buso ak sëñ Masamba Mbàkke nga xam ne seeni diggante xalaaxaat yu dëgër dëgër la gannaaw ba leen yàlla boole ak boobu jege ñaale doxale seen diggante jàng xam lu ak xamle nga xam ne yàlla def na ba sëñ ma Masamba jaar na ci loxoy sëñ Mbàkke Buso waaye sëñ Mahmadan moom it jaar na ci loxoy sëñ Mbàkke Buso loolu doon alaqaat yoo xamante ne si euh, booba la fi nekkoon ba tey di te loolu doonul loo xam ne dañ koy nett li nii rek waaye mag ña ñu koo bind bàyyi ndax maa ngi gis ci loo xam ne ku ñu wax sëñ Moulay Bousso moo ko bind jëmale ko ci sëñ Masamba muy xasiida bu rafet boo xamante ne si guddul loolu waaye mënees naa wax na jaar jaar yi sëñ Masamba yépp ma nga ca te loolu ñoom bëriwul duñ ko daan def li ëpp ci li ñu bind moo ay fiq fëlëg ulumul quran alxaqida yooyu ci lañ daan bind buñ demee ba bind ci nit rek mooy wane ne kooku ak mbaaxam jéggi na dayoo bokk na te lam wax wax ju rëy jum ko wax ne ko bii cheikhul baax yi kiraaman xabasa faxrul kiraam yi mu ne sëñ Masamba bokk na ci ñi nga xam ne boo ëllëgee sëñ Touba day puukarewu ci ñoom mu ndax bokk na ci ndamul gaa baax yu tedd ya yàlla def sëñ Masamba ak sëñ Mbàkke Buso sëñ Masamba rek moo amoon sëñ Mbàkke Buso nit ku wegu la woon te jàpp boppam waaye sëñ Masamba da daan dugg ci biir ak njabootam di ca def ndax man mii sama maam jooju ma wax léegi muy sëñ Mulaay yàlla daa dogal année yi nga xamante ne sii tubaab yi dañoo waxoon sëñ Tuubaa ne ko dañoo bëgg nga jox ñuy jàng français te ma waxoon ne bala ma leen a jox kenn damay xool moo xam ne jàng nañ ba àggal ba xam li ñu war a xam lépp doog leen koo jox yàlla daa dogaloon sama maam jooju bokkoon ci muy sëñ Mulaay ba tàmbali di jàng français gannaaw ba mu jàngee lépp ba noppi waaye gannaaw yàlla sëñ Masamba moo tax ma bàyyi ko te ba mu ko koy tere njàngum tubaab ma daa dikk rek waxut waxut dara sëñ Mbàkke kon loolu di wane seen diggante bu euh, xóot nit dugal doomam fenn ci daara wala ci école nga dikk sañ koo bàyyi loo te loolu xalaa xamuñ koo wees nam ko ko bàyyiloo it di karaama gu rëy rëy suñ mu lay ci boppam nettali ko ndax nee na dana ko doomi suñ mbàkk bi su wëlta jàng tubaab loolu la ko wax nee ne ko ŋaal nee na mu nga am lu mu tifli ci gimiñ ji nee la ma ca xamoon ko si néew lépp ma fàtte sëñ mu lay ci boppam bind loolu ba fi daan ci boppam bind ne shahidtu karamatin lahu yaqina bihi xasala al ma al marami nee na teewe sama diggante moom loolu la ciy junj loolu ki ma ko leeral mooy doomi sëñ Mulaay bi ñu wax sëñ Cerno Buso so sëñ Mulaay ci boppam moo ko loolu lépp di wane diggante sëñ Mbàkke Buso ak sëñ Masamba waaye ki nga xam ne moom moom fii di sëñ du Fati Xari ku ne xam ko digganteem ak sëñ Xasan Buso bi may bëgg a ñëw rek am na mag moom wax ne ma moom moom ci boppam yàlla dafa def am bis sëñ Xasan yónni ko ci sëñ Mamadou Fati Xari li ko waraloon mooy dafa amoon soxna soo xamante ne sii dafa bokk ci njabootu sëñ Assane so maanaam li ñu naan taalibe amoon borom kër bu bokk ci njabootu siñ Modou Fati Xali yàlla dogal seen diggante su dafa am ci am ay xew-xew yu am seen diggante bañ war koo defar yi yàlla defal yàlla bi sëñ Assane yégée ni sëñ Modou Fati Xali mooy kilifa góor ga rek dafa wax ne kon li ma ca bëgg danaa ko am ca moom la yeble ndaw la ne ba mu àggee sëñ Modou Fati Xali ci boppam moo defaraat sëy ba jaarale ko ci taalibeem bu góor boobee kon loolu lépp dañ ko doon jiital rek ngir wane na xam naa ne kóllëre yu demee nii ak yii moo tax ngeen woonu waaye xam-xam bi moom nekku fi kon nag waxtaan wi moom comme ni ko Seexul Xadiim waxe rek noonu la demee ahamiyatu fiqhi al muamalat al bay'u wa shiraa'u namuzajan loolu mooy li nga xamante ne si mooy thème bi bi nag dañ cee def dañ cee bind bam sori lool waaye yàlla dogal ñi daal ci am ak deltu gannaaw maanaam daal di koy sensé ndax lépp ngir bëgg rek wax loo xamante ni sii dana gën a mën a jege ñi ci nit ñi ndax bi biñ biñ ko defee ba noppi dafa am suñu mbokk moo xam ne ku ñuy faral di yëral li daan wax yëral koo xam ne boo bindee ñaar da koy xool wala koy waxtaanal ci xam-xam bokk na ci conseil yi may faral di wax ne ñi nga xamante ni sii dañoo jàng ci réewi naar yi yàlla da leen a nattoo suñu dikkee wala ñi wala sax borom xam-xam yi ci Tuubaa ñi génn ñi génnul ñëpp suñu wax la wax boo seetee seen moroom ku jàng ne ñoom rek moo ko mën a jariñoo mu ne loolu daal ab mulaaxasa la bu mu def lool nag tax nañu am ak soppax ndéeku gu mag ci tem bi ndax fañ ko doon bindee dañ koo jàpp ne daal ku ko gën a wàcce nit ñi mbooloom nit ñi danañ ci mën a gën a jariñoo waaye bu fekkee dañ laa woo xaj na te la nga wax ñi am xam-xam rek la concerné ñoo ko mën a xam ña koy liggéeyee ku si néew it ñu néew ci peuple bi la doon mooy ay rijaalu amal homme d'affaires yu mag yi ak ñu demee noonu ñooñu dañoo koy yittewoo lool nag tax na ñi amoon ab soppandiku ci thème bi tuuti maanaam gën koo fas yéene képp ku ko dégg rek boo jàngut yi mu mën laa jariñ lu doon thème boo xamante ne si ku jàng kese lay mën a jariñ ndax boo seetee ni thème bi demee taxoon na dañoo njëkkoon a bind ci lu ñuy wax ak taarif bi bursatil awraaq maanaam li ñu naan bourse waa économique ñoo koy faral di wax dafa am ak rapport lool al fiqhul islaami yi da ciy dugg di ca wax ay waxam waaye bourse boobu boo ko doon leeral fii tey xaj na bo yéen borom xam-xam yi rek yéen a koy mën a xam waaye ñi ëpp ci waa Sénégal ak ñii di ko fas jariñu ak ñi yëngu ci jënd jaay du tax mu concerné loon lool ñoom yi gën a concerné daanaka mooy ñi nga xamante ni si ay moom day mag lañ nekk ci réew mi kon loolu tax na ñu deltu ca gannaaw ak lu ñuy wax turuqu tanzimi al bursaat ak naka la ñuy organiser ay yooni bourse bourse boobu noonu moo xam yoon bi ñuy wax alxorra la nga xamante ne si bu libre bi la wala bi ñuy wax alxukumiya wala bi ñuy wax almuxtalita ak lan mooy alwadaif al iqtisadiya li bursati al awraq al maliya maanaam lan mooy liggéey yi jëm ci wàllu koom-koom nga xamante ne si su boobu moom lay taxawee ak lu ñuy wax ijaaru suuxin daa imatin mustamirratin naka la ñuy créer benn marché boo xamante ne si bu sax lay doon di continuer ak lu ñuy wax suhulatu istithmaari ruusil amwaal maanaam liñ naan investir euh, lu jëm ci capital yi alal yi maanaam loolu it ci lañ bëggoon a wax ak lu ñuy wax tashjiihul iddixaar wa tajmii al amwaal ak lu ñuy wax muwaazanatul azhaar di fi ñu ci wolof ay borom xam-xam rek moo fi teew ba lu ñuy wax samaasiratul awraaq al maaliya fi al qaanuun al wad'i wal fiqh al islaami lu ñuy wax xaqu simsaar fi al ajr lu ñuy wax qasaa'isul ashum wa mawqiful fiqh al islaami ak lu ñu wax anwaa'ul ashum min haysu tabiihatil xissa ak lu ñu wax al ashum an naqdiya fi al fiqh ak lu ñuy wax anwaaxul ashum min xaytu achakl ak lu ñuy wax anwaaxul ashum min xaytu istihlaak wa adami ak lu ñuy wax anwaaxul ashum min xaytu alxuquuq foofu lañ ko tàmbalee woon mu bokk ci xadaaya fiqhiya muasira ñi di ko jàng ci université yi waaye dañoo bëgg rek xam ne dikkuñ fi ngir jàngale ay borom xam-xam lañ fi fekk loolu ñoom bu ñu ko waxee moo tax sax ñi taay yi nekk di ko firi ci wolof danañ ko xam ñoom waaye nag lépp ci xamatu naas bi mooy nit ñi mbooloo mi dañoo gis ne yooyu ñoom maanaam seen commerce seen ni ñu commerce ñoom ak ni ñu jaayee ko jëndee agut ci loolu loolu it ñi mu concerné ci Sénégal taxul mu bari fi mu ne boo ko doon boo ko comparé les ci peuple bi gëw ne mat nañu 1 pour cent sax kon loolu am nañ ci ñu ngi ci jégalu foofu lañ tàmbalee woon waaye loolu lépp dañ koo leb ci conseil koo xamante ni si maanaam dafay faral di wax ne bokk na ci suñuy ay ñun ñi ñi yàlla na too wax su ñuy wax dañuy wax loo xamante ne si dana jafe ñi ñuy waxal di ko mën a xam loolu sax lu xam-xam bu bari waaye mënees naa wax ne rek xaj na euh, dañ koy jàng rek te ñoom ñu jàng la neen loo xam ne ñoo ñun xamuñ ko comme loolu moo tax nag ñi fas yéene daal di gën koo wàcce bu baax a baax ba ki nga xamante ne si bitik la yor ci koñ bi sax su diggee waxtaan wi insha allahu taala dana ci mën a jariñu waaye boo seetee li ñu doon njëkk a wax léegi ki ci mën a jariñu dëgg dëgg dëgg dëgg mooy homme d'affaires yu mag yi ñi nga xamante ne si maanaam ñoo ŋànk koomu réew mi daanaka façon yooyu te ñoo ñu xaj na yii soxalu leen ndax ñoom ña ca yeneen endima yoo xamante ne si islam du ko àttee waaye ay rësmaliya lay doon muy capitalisme wala ay chuiya wala libéraliya muy ay libéralisme capital chuiya eh, eh, yu demee noonu maanaam communisme la bëgg a wax kon loolu dañ koy leeral tuuti ndax ngir bañ am ak juyoo ak suñ xaadim mi nga xamante ne si moom moo sàkkoon waxtaan wi ci ñun kon loolu rek lañ jublu ci fas yéene dem ci loo xamante ne si xaj na ku ko dégg borom bitig yéeg ñiy jaay bitig mbagg ak ñëpp danañ ci man a jariñu insha allahu moo tax ñu bàyyi tem bu njëkk bi ak nañ ko tàmbalee woon dikk ci boobu sëñ Xaadim wax na ko léegi Seex Xaadim wax na ne tem bi mooy ahamiyatu fiqhil muamalat al bay' wa shiraa'u namudaja kon ku dégg euh, tem euh, bi rek wala euh, niñ ko tuddee da nga xam ne am fiqhul muamalat lañ wax fiqhul muamalat Seex Xaadim wax na ko lu yàgg yàgg lu lu yaatu la daanaka buntu fiq yu mujj yi mujj ci téere yi moom la ñuy wax al fiqhul muamalat maanaam comme ni mu ko waxee bu fekkee sukkandiku nañ ci xamle bi nga xamante ne si borom xam-xam yu bari d'accord nañ ci nee nañ dafa jàkkaarloo ak fiqhul muamalat fiqhul ibadat boo nee fiqhul muamalat rek xel yi day dem ci fiqhul ibadat loolu mooy muxaabala dañoo jàkkaarloo ñoom ñaar fiqhul muamalat nag buñ koy wax. nee nañ an mën na caa bokk ak la ci aju lépp ci lu yaatu lool nee nañ ba tey bu ñu ko dee wax jaay mën na caa bokk te moom sax moom lañ fas yéene waxtaane tey ji insha allahu taala nee nañ bu ñu ko dee wax ba tey lu ñuy wax salam mën na caa bokk te wolof du ko wax salam le suñ ko dee wax ba tey alxard mën na caa bokk mooy leble boo xam ne amul intérêt suñ ko dee wax alrahnu mën na caa bokk waaye suñ ko dee wax ba tey ak damaan mën na caa bokk ñu di ko wax garantie wala wolof naan ko warlu ak sharikatu mën na caa bokk muy bokk alal ngir liggéey ñi gën koo mën a leeral ne mooy société xaj na almusaraa mën na caa bokk mooy maa nit ñu bokk di bay ak yee ci ak yépp alwakaalatu mën na caa bokk lu ñuy wax délégué daal xaj na lay gën a jegeel ci baatu tubaab wala iqraar lu ñuy wax saxal mën na caa bokk lu ñuy wax alwadiyatu muy dénkaane mën na caa bokk lu ñuy wax al aariyatu caa bokk muy able lu ñuy wax al ashufatu maanaam muy dab suuf mën na caa bokk lu ñuy wax al ijaaratu muy yooloo maanaam nga di ngay liggéey nit mu di la fay mën na caa bokk lu ñuy wax al joxlu neexal mën na caa bokk waaye lu ñuy wax ixyaaul mawaat mën na caa bokk lu ñuy wax al waqf mën na caa bokk lu ñuy wax al mën na caa bokk lu ñuy wax al xadaa atte mën na caa bokk lu ñuy wax ash-shahaada mën na caa bokk lu ñuy wax aljinaayaat mën na caa bokk muy atteeg tooñ ak yu ni demee ba ca ila axiri kon lu yaatoo yaatu la moom fiqhul muamalaat waaye suñ ko waxee rek mooy lool muy tam boo xamante ni si nag wax dëgg yàlla lott nañ ci waaye nag teewut danañ i'tiraaf ne tam bu am solo la lu tax mu am solo mooy li ëpp ci yooyu ñi lim yëpp tam bari lool ak yiñ limut jaay ak jënd moo ci gën a ràññeeku moo ci ëpp doole ndax yi ñu wax yëpp bu la neexee nga ne man bii mësuma koo def ba ma juddoo ba tey nit judd na ba génn àddina te musta dem de tay lekk nit mën naa nekk ci àddina di dund ba génn fi te musta def li ñaan asharika nit mën naa dem ba génn àddina musta taxaw ci tribunal di layoo ak yu demee noonu kon yi jiital yëpp rek jàppal ne bu ci nekk nit mën na koo def mën naa dund maanaam te du ko def ba génn àddina waaye nag albay wa shira moom amul kenn kenn ku nekk ci àddina ak koo mën a doon daan du ko def moom kay mën nga ne du ma jaay waaye du ma jënd mënta nekk nga xam ne ñaar lañ yoo xamante ne si dañoo am ak talaasum soo ne bii du ko def it faaw ba ci des nga koy def kon tànn gi tànn loolu lu ama am solo la ba tey poñ bu am solo la ñu tànn ko euh, muy loo xamante ne si ni ma ko waxee léegi kenn ci yonent yi sax commerce nañ suñ jaay yu di jënd nañ te jaay sax ñu bari ci ñoom def nañ ko ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko comme ni ko sëñ Touba waxee te mel na ne yeneen yonent mas nañ koo def ndax ba muy lim yi nga xamante ni si dañoo dagan ci ñoom nga xam ne bu leen neexee def bu leen neexee ba daf ko caa boole daf ne amal buyuu wa shira wa nikaah wa nahwaha min kulli ma allahu abaax fala yaziduhum siwal ujuri la dal karimi al akrami shakuri nee na jaay de ak jënd ak takk soxna dama jiital ko léegi da ci fiqhul muamala da bokk nee na bokk na ci li yàlla daganal ci yonente yi suñ ko defee du leen manquel nee na du leen dolli lu dul ay yoon rek fa yàlla mu tedd mi kon loolu it euh, mbir la moo xamante ne si mu am solo te ku li ma ko waxee léegi ku jaayut da nga jënd moo tax ñu ne Sëñ Tuubaa daan ko wax mag ñu njëkk ñi ne leen na ngeen fonk mbay lool ndax bu ko te jël ko di ko jéem a dunde ndax nee na ko ko jaay it la nga bayee dangay dem jëndiwaat ab dund rek lool yi daana ko wax loolu yi ñu dégg ci ne kon jaayu jënd loolu ci sëñ bi wax ci xaside ci ci tasawu du ak li nga xamante ne si sëñ bi wax na ko ba tey dénk ko mag ñi dajee feeñ ba tey waaye ñi gis ne ba tey njaay ak jënd am solo gi nga xamante ne si am na solo manees naa wax ne sax mag ñu njëkk ñi am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo xalaatoon Euh, comme ci année 70 yi euh, murid yi gën nañoo jëm ci wàll commerce ñi leen di woowee ay bawol bawol dañoo waxoon ne ñoom léegi dañoo bëgg taalif téere yoo xamante ne si day jàngale calcul ngir bu ñu doonee ay commerçant kenn bañ leen a mën a nax ñu gis ci boo xamante ne sii ci wolof lañ ko taalif sëñ Moussa Ka def ko muy bu am solo xaj na ñu bañ xamuñ ko waaye mu mu mat di bàyyi xel bu ci arab sëñ Modou Bousso moom sëñ Mbàkke Bousso nga xam ne mooy ab taaw moom it def ci arab ab téere tuddee ko kitaabul xisaab bu am solo boo xamante ne si képp ku yëngatu ci lii war na war na koo xam bu baax baax loolu lépp li ma bëgg a wax rek mooy euh, li ma doon leeral léegi rek waxtaan bi dama ko bëgg a tàmbalee fii rek mu locale tuuti sëñ si ñu xamoon fii ak yooyu ñu jiital leen ci ndax loolu lépp dana tax mu gën a jege nit ñi kon loolu lépp taxoon na mag ñu njëkk ñi xamoon na ginnaaw njaboot gi dëgg mën commerce nañ fexe ba léegi ñi bàyyi leen leen xel loo xamante ne si danañ ca man di sukkandiku di ko ngir xam balañ caa dugg xam ko te lillahi alhamdu mel na ni leen bu baax sax dem nañ ba njaboot gi maanaam ñi aju ci fii ak yoonu murid ak yu demee noonu fu ñu tuddee ak tijaaratu awil bay wa shiraa'u rek muy jaay génn rek dañuy jàpp ne ñoom ñoo ko dàq ci réew mi donte nekkuñ sax ñoo xam ne dañ ci li ëpp dañuy toog ci ay bangi tubaab di ko jàng wala ñu dem ci ay mudarajaat maanaam di nekk ci ay kulliyatul iqtisaad ak yu demee noonu ak yu demee noonu wala kulliyatu tijaara nekkuñ ci ay jàng di lu jëm ci commerce wala koom-koom waaye teewuñ ñu ko dàq ci réew mi lañ ndax xaj na ñaan gi yàlla defoon mag ña bàyyi doo leen ko xel ak yéen ñeen préparé loon gis na ñoom dëgmal nañ ko loolu kon loolu lépp mënees na ko jàpp ba tey waaye boo seetee nag thème bi ba tey bokk na ci li tax mu am solo dañuy dund ci dëkk wala ab mentaxa ak wàll wàll goo xam ne bu ñu nee bawal rek lépp dugg ca boo seetee dëkk foofu fépp amut seen an li ñu naan industrie amu fi muy ay usines yu bari yu ñuy liggéeyee ak yeneen euh, jumtukaay yi nga xamante ne si moom la nit ñi di sukkandiku ngir am koom bañu fi lool amul dara lu fi am daanaka dudul commerce rek. nga xam ne mujj nañ commerce mintaxab yi di zone bi ñu leen di ay bawol bawol ñoom ñëpp ay commerçant lañ bimtiyaas maanaam ay commerçant lañ ci lu ràññi koo ràññi ko ba mën nañoo wax ne sax boo seetee ne yëmatut ci mintaxa bi rek waaye dem nañ ba euh, réew mi yëpp ñi fi dàq commerce ci gën a jëm ci albayha wa sharaaw waa fii lañ ci mbooleem capital yi nga xamante ne si mooy capital yi région yi yëpp loolu gis nañ ko fa bal li gën a yéeme sax am nañu dem ba gis ne ñoom dong ñoo ci yëngutu loolu am nañu koy wax daanaka libaane yi rek ñoo leen doon xëccoog ñoom te daa ne mujj ci mujj yi eh, ñi ñi ñoo leen ëpp tax na sax ñi ci nettali lu xorom dem nañ ba boo demee ci charqu Sénégal muy penku bi dëkk yi fi nekk ay bàkkalu gi demee noonu dañoo gis ne bu ñu demee ba nga xamante ni si lu mel na màggal Tuubaa dëgmal na da ngay gis ñi nga xamante ne si ñoo fa dëkk ñooy sukkaanul asliyuun muy ña fa dëkk dëgg dëgg dëgg nga xamante ne si liggéey andiwu leen fa bu yégee ne waa fii ñi ngi bëgg dem ci màggal gi dañuy gaaw di duggi fas yéene am lu baree bari ci ay yu ñuy dunde eh, dugg ci lu leen ëpp maanaam dañu dem dugg ci marché ba lu leen ëpp loo xam ne seen dundub ay fan lay doon ngir xam ne bitig yëpp leen mu tëj te ko yor dañuy yi te mën nañu faa am ay fan loolu gis nañ ne liñ ràññi ko loolu lépp day wane ne kon lii tem la boo xamante ni sii daf yooyu yitteel te loolu yàlla def na it lu am solo la tem boo xamante ni sii maanaam fa nga dëkk ak say aada ak yëpp dañ doole nga tànn ko loolu dana am solo lool ndax dana tax ñu baree bari ñi mën a jariñ ñu yaatu lool bañ na tem yoo xamante ne si ñu ngi koy euh, waxtaane ak demee noonu ñi mu yitteel mënees naa wax ne maanaam du waa fii euh, donte mën na bañ a génn réew mi waaye du doon du concerné waa fii loolu comme comme ni mu concerné ñeneen loolu yi mënees na ko jàpp ci waxtu waxtaan wi ba tey Euh, bokk na ci waxtaan wi li tax mu am solo ba tey it ñu seetee comme ni ma ko waxee ginnaaw fii ñëpp ci commerce lañ yëngatu te xaw naa jafe tuuti ay atteeb war nañu di ko waxtaanee lu bari ndax sëñ Tuubaa waxoon na ne wa fixlu cheyin xabla an yaarifa ma xakama fihi mutlaqan rabu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma nee na man day jëf dara te xamagoo lan mooy atteeb wala atteb sharia ca loolee nee bokk na ci li yàlla araamal kon nee na bala nga yëngu ci dara nanga dem ba xam loolee mooy lan nga doog caa yëngu ba tey loolu kon mënees na ko ca jàpp ba tey waaye bokk na ci li tax thème bi am solo ba tey inxiraadu hadihi almasaail maanaam fi mu ne nii dañoo dem ba nga xamante ni si daara yi nii suñu daara yi ñuy jàng daara yi nekk Gédé daara yi nekk Daarul Karima daara yi ñu naan ko daara yi Madalis daara yi nekk Daarul Mawti yi yëpp rek ci Tuubaa dañoo dem ba bu njëkk mag ñu njëkk ñi dañ la daan jàngal mboolem téere yi ba nga àggal ko nga doog a génn noonu la mag ñu njëkk ñi daan def dañ la daan jàngal téere yëpp nga jàng ko ba àggal door a génn léegi nag yàlla daf ñoo nattoo ak yàkkamte ñenn ñu ne du yàkkamti waaye jamono moo gaaw yitte yi di teel a bari ba tax nit ñi duñu àgg fa mag ña daan àgg ci jàng bu njëkk mag ñu njëkk ñi dañu fexe ba jàng mboolem téere yi nga daan dégg ci fiq dem ba jàng muxtasar Cheikh Khalil jàng jusu lawal ba jàng jusu saani ba léegi nag téere yu njëkk yi muy risaala di muqaddimatul izziya ak yu demee noonu yooyu yëpp nag masala yii may doon lim léegi muy fiqhul muamalat am nañu ne dañ koy cof duñ ci yaatal lool moo tax ñu daan jàng lañ daan wax ñoom lawal ak saani muy muxtasaru cheikh xalil al juz al awal wal juz al saani dañ ko daan jàng ngir masala yi ëpp doole ca foofee la dikk waaye kon léegi jamono ji dañuy wax ne hunaka inxiraab maanaam am na mu ngi tàmbali def disparition maanaam di nëbb di gën a néew loolu yi tax na tam bi am solo ba tey alxuraanul karim ci boppam moo mel ne ku soññee ci ñiy jaay ak ndax moo ne laysa aleykum junaaxun wala laysa aleykum junaaxun an tabtagu fadlan min rabbikum nee na amul benn bàkkaar amul dara lu leen war a mën a seene doon nit ñu sawat di sàkku seen ngëneelal borom am ñu ko jàpp ne albayha wa lay wax mu waxaat neen ne fam famshu fi manaakibiha wa kulu min rizqi mu ne dox leen ci kaw suuf te ngeen lekk ci wërsëgu yàlla ñu baree bari di ko firee commerce ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne attaajiru saduq wal amin maha nabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin nee na commerçant bi nga xamante ni si dafa dëgg te wóolu nee na bu yomal xiyaamee yonent yi lay àndal gaa yu dëgg yi lay àndal borom daraje kawe ya waaye ña nga xamante ni si dañ doon xeex ci yoonu yàlla ba génn ci àddina ñoom lañuy ñuy àndal mu am yeneen aaya yu dikk di soññee ci commerce ba tey tañ teg ne dañu cay dàq fekk dàq ñu ca waaye day def bu fekkee lu gën a fort commerce teew na te du yàgg mu ne bàyyi leen commerce bi te dem ci comme mu ne yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yawmi aljumuati min yawmi aljumuati fasxaw ila dikrillahi wa daru lbaya dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun yéen ñi gëm yàlla bu ñu noddee ci bisub ajjuma na ngeen dem jëm ca julli ga te ngeen bàyyi njaay ma foofu diggante bu gàtt rek la wax nañ bàyyi njaay mi ngir am na loo xamante ne si gàtt na te am na solo lool di ndigalal yàlla nañ ko bàyyi waaye li lay xamal ne foofu nekkul ne day dàq nit ñi ci njaay di leen cay soññ mooy lam ca teg ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi lardi wabtagu min fadlillahi wadkuru llaha kathiran laallakum tuflihun daf ne bu julli ga jeexee rek na ngeen tasaaroo waat na ngeen tasaaroo waat ci kaw suuf da ngeen sàkku ci ngëneeleel yàlla dangeen ngeen di tudd yàlla lu bare bare nga xam ne ngëneelal yàlla sax day dikk ci alquran yenn ci mu fassiroon yi di ko jàppe albay wa shirar kon di wax dëgg yàlla loolu lépp day wane ne tam bi lu ama am eh, buñ ciy wax nag dañoo bëgg njëkk a wax lu am solo muy kuy commerce dafa am foo koy defee mënees na koo tudde as suuq muy marché waaye dana ëpp marché ku am bitig ca koñ ba rek mën naa doon barab ba nga koy jaayee moom te lislaam njëkk a fonk ndax lan gis nga bañ koy xamle taarif bi ci langue arabe mooy ni ñu koy xamlee dañ naan mooy barab bi ñu jaayee ak a jënde suñu boroom daal ne moom it tagg barab ba mel na ku fa tagg ndax yónente yi mu yónni woon bu ñu leen dee bëgg a xeeb naan ah ñoom nu ñu doone ay yónent nekk fii di dox dem ci marché yu demee noonu suñ boroom daal di wàcc aaye dem ci marché ayu moo tax mu ne waxaalu maa li haasa rasuli yaakulu taama wa yamshi fil asbaaq ko daan wax yónente bi sallallahu alayhi wa te mi ngi lekk aw ñam di dox ci marché yi loolu lañ daan wax jàpp ne marché bu fa dem dalay wàññi daraja yàlla ne déedéet al bay'u wa shiraa'u lu am solo mu waxaat ne wa ma arsalna qablaka min al mursalina illa innahum la yaakuluna at-ta'ama wa fi l mu ne yonent bi kon aay bi mooy tontu gaaya nee na mësuñoo yónni ci li la njëkk benn yonent mësuñoo yónni ay yonent lu dul na ñoom ña nga daan lekk aw ñam waaye ña nga daan dox ca marché ya kon loolu dara si ko ci mooy mafhum buñ seetee ci téere yi nga xamante ni si ñooy wax ci xadis yëpp it boo ca demee comme dañ koy gaawal tuuti rek ndax lañ ko wax day bari dañoo jagleel ay bunt yu am solo jagleel ko marché ndax boo demee ci téere Buxaari yi da ngay gis mu tudd lu baree bari nee nañ sax tudd na ñeenti bunt ci wàllu marché rek tudde bu njëkk bi baabu maa ma zukira fil aswaaq li nga xamante ne si moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ay marché ñu ne am na juróom-ñetti xadis wax na ca nan la ñuy jëflantee ci marché nga xam ne lislaam marché sax moom dafa garaaw am na yàqute yu bari yu fa mën a am waaye teewul lislaam moom du dikk daan ne fii dafa yàqu rek dafa dugg day dikk fekk fu yàqu moo daal di teg ay jàngaleem daan ne léegi nii laa bëgg ñu fay nekk dem leen moo tax am na aadaabu taamul fi suuq waaye loolu duñ koo ta duñ ko faram-fàcce dañ koy tudd noonu rek wax na ba tey karahiyatu saxab fil aswaaq maanaam sib giñ sib ay coow ci marché yi wax na baabul aswaaq allati kanat fil jaahiliya marché yi nga xamante ne si moo amoon ci jamonoy jaahiliya loolu di lu am solo lu ñu war a taxaw ñu gis marché nañ ko fonk ci lislaam ndax gis ngeen Touba dëkk bii marché bi fi gën a mag bokk ci marché yi gën a mag ci Sénégal ñu ngi ko tudde suuqu Ocass marché Ocass marché Ocass ci al aswaaqul jaahiliya yooyu la bokkoon nga gis ne suñ kilifa yi kon buñ dee wax naan eh, nitu diine moo nii lay mel day bàyyi lépp jëm ci loo xamante ne si am nañu ko mënees na ko tudde rek ak làbbewu yàlla dafa def sëñ bi moom gisewutoon noonu moo tax ak njabootam it yooyu daanañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ci gis nañ ci téere xadis yi mu ne baabu tijaarati fi ayyaamil mawsimi wal bay'i fi fi aswaaqil jaahiliyya yooyu yëpp kon wax ni fi nga xamante ne fi la kii jaay ki jënd di la lu mu bàyyi xel la lu def ci moom ay aaya la ak ay xadis ñi mën cee def waxtaan yeneen yoo xamante ne si xaj na day yenu fiqhu fiqhu suuq wala fiqhul aswaaq kon loolu it lu xam lu lu lu lu am solo la kon loolu lépp mooy barab bi nga xamante ne si fële nit ki di jaay ak jënde waaye nag bu ñu demee ba nga xamante ne sii génn nañ ci kooku comme ni ma ko waxee dañ ko dañ ko doon leeral ne am na lu ñuy wax suuq rek am marché te lislaam bàyyi na ko xel waaye loolu ndax bu ñu ko doon bëgg a faram-fàcce moom it day jël waneem waxtaan waaye ci gàttal rek mënees naa wax ne day ak suuq ginnaaw bi ci génnee ka fay nekk di jaay ni lislaam tege ba suuq dikk daal koy organiser ne lii moo ca dagan lii moo ca baax lii lañ fa war a def lii lañ fa war a def noonu nag la tege ba tey ki nga xamante ne si mooy def albay wa shira ba tey ndax gis nañ ne commerçant bi ki nga xamante ne sii moom la moom mooy jaay ak ki nga xamante ne sii mooy jënd alquran wax na ak ñoom ne illa an takuna tijaratun an taraad an taraadin nee na bëgguma alquran nee na bëgguñ ak commerce am njaay ak jënd muy am te doon loo xamante ne si ñaar ñi nga xamante kay jënd ak kay jaay dañ caa d'accord loolu nag suñ ko waxee kon ñoo ngi bëgg dikk ci ñi nga xamante ne si albayhu wa shiraa'u ñoom lay ñoom lay itteel ci loolu l'islam daal koy organiser fekk fi ay euh, façon njaayin yoo xamante ne sii ak jënd yoo xamante ne si mënees na wax ne yiweewul dëppoowul ak al axlaaq muy jikko yu baax yi l'islam dikk du ne jaay ak jënd dama koy tere waaye dana dama koy organiser léegi dama bëgg ñi di ko defee nii noonu noonu la ko defee ba mu dikkee li mu njëkk wax mooy jaaykat bi la jàkkaarlool ne ko bëgguñ koo xamante ni ci gone la te doonagul li ñuy wax al mumayyiz maanaam ku ràññee lu baax ak lu bon ba noppi di jënd ci yow mu dellu ci ay kilifaam ñi ne bëgguñ njaay ma di wéy loolu lislaam bokk na ci li nga xamante ne sii wax na ko ci diggante al baa'i'u wal mushtari maanaam lim njëkk a teg mooy naxante laa bëgg a wax ne rek moom dafa njëkk a jële Euh, daanaka yi yëpp daje nañ ci ne gone bu fekkente ne moom la ñu yónni maanaam wala moom ci boppam sax moo dem jël engagement di jënd nee nañ su fekkente ne du mu mayees moo koo xamante ne si ràññeegut nee nañ kooku lu mu jënd kilifaam su dikkee moom moo koy wéyal moom moo koy bañ a wéyal te li xamoon mooy contrat jaay bu xasee am ba noppi balaa xàcc am faaw day neex ka jaayoon waaye fii diine maslaa wu ci loolu lépp li ma bëgg a wax mooy liñ naan naxe ci boppam kon nag tàmbali na di ubbi ay bunt ak di leeral ay masala yoo xamante ne si nee na da koy tere loolu jëm ci kon njaay ak jënd ba tey ñi dem ba ci kanam tuuti gis muy waxati ñiy waxati fuqaha yi di lijjanti lu ñuy wax bay bay'ul madinun maanaam koo xamante ne si léegi moom yàlla dafa def xel mi matu rawatina bu fekkente ne la nga xamante ne si xel ma dafa manqué tegu ko boppam ndax bu fekkee moo ko teg boppam sax am na ay borom xam-xam yi ciy wuute moom naan njaay ma wéy na ak waaye li gën a wóor ginnaaw léegi moom am na lu dañal xelam rek ak lu mën a doon donte moo ko def li gën a wóor mooy bu fekkente ne dem na ba àndaat ak xelam su dee see ne man jaayatuma wala jëndatuma dañ koo war a xàcc loolu li ma ci bëgg wax kon sariya tàmbali na albaa'ihu wal léegi tàmbali euh, tàmbali di di di seenu jëflante lépp war a loo xamante ne si lu dagan lay doon. diine ba tey di bañ bay'ul mukrah koo xamante ne si dañ koo forcer nit koo xamante ne sii dañ koo forcer te forcer lu yaatu yaatu la. léegi force bañ daan wax sax bëreetut mooy dikk jëndal force ak doole rek nangu sa alal loolu bëreetut mel na ni waaye bokk nañ ci force ci ñoom ni koy waxee li ñuy wax alxadiatu muy xeeti nax nit ci nooy jëfe wala ci nooy waxee ba def ko noo xamante ni si rus naa bañ jënd ci yow yooyu yëpp diine doon na ko tere ngir bëgg al baax wala mustari la ñuy def mu doon loo xamante ne si fa mu tegu day doon loo xamante ne lu baax a baax la ku dese it ni ki noonu gis nañ diine daan ko tere am njaayam akum jëndam maanaam waxut ne bu mu dem jëndi dane bu jëndee wéyut li fi yëg ki nga xamante ne sii moo ko yéex wéyatu ko kon loolu lépp loolu rek te loolu bunt yu gàtt la ci fiq waaye boo xoolee li ngay gis mooy mi ngi tàmbali di tanzim bëgg li ñuy wax alxalaal wala xaraam muy lu lu dagan lu araam dal di am ci jaay ak jënd kon loolu it lu ñu ràññee ci la ak fiq waaye diine ci boppam ci albayha wa shira mu daal waxaat yeneen yu am solo te bëgg ko lool muy asidqu fi taamul mooy ki nga xamante ne sii mooy jaay ak dëgg gu mu war a am ci jëflante gi mu jëflante moo tax jëlee nañ ci benn saxaaba radiyallahu taala anhu mu wax ni dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yi de ñoom ñooy saay-saay yi ñu ne ko ah yow yonent bi xanaa yàlla waxut ne commerçant yi xanaa jëmelewu ci ñoom discours bi xitaab bi ne xad axalla allahu albaya xad xad axalla allahu albaya wa xarama riba xanaa yàlla waxut ne yàlla daga na la jaay daal di arama riba nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw waaw yàlla kay moo wax loolu waaye li tax ñu wax loolu mooy commerçant yëpp dugguñ ci commerçant ya nga xamante ni si nee na dañuy waat foo leen fekk luy dëgg ak lu du dëgg lépp dañ koy waat di bàkkaaru nee na ñuy waxtaan di fen di wax lu amut ñu baal ma ci kàddu googu nee na ñooñu moo tax muy wax te yi di lu yaatu ci ay commerçant ci niñ koy waxee waaye loolu lépp diine ngir yittewoo gi mu yittewoo albayho wa shiraa'u tax mu dikk nee na di indi ay axlaax yooyu noonu ñu jëlee ci abi dar radiallahu taala anhu mu jëlee ci yonente bi salallahu alayhi wa mu ne am na ñett ñoo xamante ne si ci ni mu ko waxee ne xaala nee na salaasatun am na ñett ñoo xamante ne si laa yanzuru llahu ilayhim yowma alqiyamati wala si bu yowmal xiyaamee yàlla du leen xool nee na ñooñu yàlla du leen sellal nee na ñooñu am nañ mbugal mu nee na ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti yoon ñetti yoon lañ ko wax ne ko ñooñu ñooy ne ko kon de ñu ne ko ñoom saxaaba yi wala Abu Dhar li boppam ne ko faxultu dana faxultu xaabu ma ne ko kon de ñooñu kukk nañ kukk mooy tas yaakaar wa xasiru ma ne ko ñooñu perte nañ doog ko wax ne ko man hum ya rasulallah ñooñu ñooñan nee na mu wax ñu bëree bëri daal di wax doo ko wax ne war a wa rajulun ittaxada al aymana bidaatahu yaxlifu fi kulli xaqin wa baatilin ne mooy koo xamante ne si dafa jël ngiñ yi muy marchandise am lépp luy dëgg ak fen daf cay nekk di ca waat ngir bëgg a jaay am marchandise am loolu lépp kon di wane ne diine bi mu dikkee albayhu wa shiraaw dafa doon loo xamante ne si dafa teg ni nga xamante ne si albayhu noonu la war a mel te ci lañ toll fi mu ne nii. diine ba tey ci gàttal rek daal di wax lu am solo loo xamante ne sii mi ngi jëmati lu ñu mi ngi jëmati ci lu ñu wax al amaanat muy kóolute kóolute di lu am solo ci jaaykat ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romboon ci benn bis ci ab marché nee nañ mu daal di dugal loxoom. ci biir la nga xamante ne sii moom la jaaykat ba di jaay nee nañ ba mu ko dugalee baaraamam dal di daj ay tooy tooy mu jàkkaarloog jaaykat ba ne ko ana lii yow borom ñam wi borom yow miy jaay lii nee na kooko daal ne ko yaa rasulallahi asaabatu sama maanaam taw bi moo ca wàcc asamaan moo ko jot yonent bi ne ko ndax lu la tee def loolee ca kaw ñam wa loolee tooy ba kiy jënd di dikk bu bu dikkee gis ko su ko jaralee mu jënd su ko jëralee du mu bàyyi ne ko xanaa xamoo ne man xasha man xasha man xasha fa laysa minni ku triché bokkul ci man mu dëppoo beneen xadis bi wax na man xashana fa laysa minna loolu nag day lu xadis boobu rek mu ne so na cee yam def waxtaan wi ba mu jeex te te temps bi du ko mat ndax ñi ngi toll ci fil xarnil waahid wal ishriin muy jamono ji ñu toll nga xamante ne si ci lañ jàppee ne ci lañ ubbiku ci la nit ñi yeewu ci la développement am ak yu demee noonu daanaka àggaguñ foofu ba tey ndax boo seetee dëgg la. sunu gouvernement yi dana yebal ay jën ay ay ay ñoo xam ne dañuy ay muraaxibun dañuy surveiller njaay yi ñënd yi waaye àgguñ ci nag ki nga xamante ni si mooy seefu euh, ñëpp moom ci boppam di ko defal boppam di fa am nja am ay loxoom di ko dugal ci biirum njaay kon loolu di wane ne lislaam rawee gum rawee euh, sunu euh, jamono yi nga xamante ne si luñ naw la tekk avancé lool te loolu rek ku ci defoon ku ci ku ko ci defoon rek sunu gouvernement yi nga xam ne ñoo ñuy àtte ba tey ñoom àgguñ foofu daanaka gis nga ne léegi sax dañuy dugg ci ab bitik fekk jaaykat ba yor yoo xamante ne si daje yépp a jeex te teewul borom bitig ba mën naa ger ki nga xamante ne si moo dikk di ko contrôlé euh, kooko bàyyi ko mu dem kooko continue di jaay te loolu bu ñu doon wax waxuma la ci wàllu jaay la ca dag nag la ca dëgganut waaye la nga xamante ne si leneen day jëm ci wàllu wér géeram la mën a wàññee poobul ak yu demee noonu loolu it ku nekk da koy xam su boobaa kon loolu lépp di wane commerce loo ci dégg ci jamono ji lu mu développé développé rek ci jamono ji ci commerce fekk nga lislaam waxoon ko bu yàgg-yàgg jëfandikoo ko bu yàgg-yàgg te loolu sax xaj na waxtaan wi dañ koy gën def noo xamante ne si ñëpp danañ ko mën a comprendre rek waaye poñ yooyu la nga xam ne moom laa njëkkoon a tom tot ci doon ko doon wax nga xam ne daanaka ci diggante état ak état lay am wala ji diggante ay société que société su fekkonte ne yàlla dogal na xaj na waaye sabab bi taxoon ñu bàyyi ko wax nañ ko bu fekkonte ne euh, moom lañu waxtaan waxtaanee sax ca lay gën a feeñe lislaam dëppoo gum dëppoo ak jamono ci albayha wa shara ba tey waaye tey dikk fekk jaaykat yi ci albayhu shira ba tey doon koo xamante ne si dafay bari ay lu muy def ay yudut noona maanaam ci wàllu peese ay balance mu ci bari lu mu ciy naxe ak yu demee noonu waxuma la lislaam tere gi mu ko tere waaye alxuraan ci boppam wax ne yàlla yunni na ab yónent ngir mu saafara loolu xew-xew bu ne am na ci àddina te yàlla taxut yàlla yónni ab yónent waaye ba nga xamante ne si aw nit nekkoon nañ duñ maandu ci ay balance yàlla yónni ab yonent boo xamante ne si nee nañ loolu rek moo ko tax a jóg muy Shuayb yonent yàlla Shuayb alayhi salaam nga xam ne foo dégg aw turam ci alxuraan daanaka yaa ngi dégg ay balance yu demee noonu maanaam bàyyi li ñu naan ab boobu ci boppam waxuma la ca diine ñuy njëkk ña waaye alxuraan dikk sàcc wàcc ci aw saar tudde ko ko tudde ko waylul lil mutaffifin ñi nga xamante ne si dañu tappale ci ay balance moo tax ñi gis mu ne awful kayla wala takunu min al muxsinin wa zinu bil wala tabxasu naasa asyaahum wala taxsaw fi lardi mufsidin mu ne na ngeen di matal natt bu ngeen dee natt àndaale na ngeen koy matal bu leen bokk ci gaa yi nga xamante ni sii dafa am lu ñu def maanaam di ko wàññi mu ne na ngeen ko peese ci balance boo xamante ne si bu jub lay doon gis nga li ñuy wax almisanul xassaas almisanul xassaas daanaka ñu ngi koy doog a tàmbali di wax muy eh, balance boo xamante ne si bu am ak yëg-yëg la loo ca teg lu mu gàtt gàtt dana jox poids am na mu jamono jii ñu koy waxee. ci jamono ji moom lislaam ba mu ko tuddee alxustaasul mustaqim yàggoon na lool mu ne wala tabaxasu naasa asyaahum wala taxsaw fil ardi mufsidin bu leen di manquil di pestal nit ñi seen i njëkk lañ leen jox ngeen fexe ba du ngeen leen jaay lu ñu toll ca peese ga daal di cay teg lu am solo ne bu leen dox ci kaw suuf di yàq loolu liñ ciy dégg mooy kon ndeke di peese di jaay di ko tefe noo xamante ne sii du noona suñu borom daf koo jàppee ak jàq ak yàq ci kaw suuf te ak yàq ci aw suuf ak yàq ci kaw suuf am na ci yeneen aaya yoo xamante ne si suñu borom a wa taala daf ko jàppee euh, lu garaaw a garaaw ba dem na ba wax ne ña koy def yàq googu noonu ak yàq gu mën a doon nañuy dagg seen i loxo nañu nañu nañu ci juweele ak yi demee noonu loolu lépp euh, di wane ne kon ñii nim leen qualifié euh, lu yéeme yéeme la. léegi nag kon ci dañ koy tënk rek. Euh, loolu ñu wax léegi noonu am na ci loo xam ne dafa jëm ci wér gu yaram waaye ci albay wa sharaab la ci rek ci moom rek la nekk waaye gannaaw lu kon loolu mooy albaa'i'u wal mushtari gannaaw ba ñu waxee barab bi ñu ko defee moom al aswaaq waaye gannaaw ba ñu waxee importance bi nga xamante ne sii thème bi am na ko kon nag léegi mënees naa dem ci li nga xamante ne si nag mooy jëmmi jaay ci boppam jëmmi jaay ci boppam foofu sax fi la ñuy jeexale su ñu noppee xam naa jox kilifa yi ñu barke na dañ koy gàttal rek euh, l'islam ci bi mu dikkee ci niñ ko xamee dafa euh, teg yërmaande loolu ci jënd ak jaay te ci ay leeral bañ kenn di ci def loo xamante ni si bëgg ko wala luy sonal nit wala loo xamante ni si euh, day waral nit ki def ko ba pare te xolam seddu ca wala la njëkk loolu sax ba tey ci wàllu balance yi jëlee nañ ci sayidna ibnu abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ne yonent bi nee na Eh, ñi nga xamante ne si ñooy borom nattukaay ak ñi nga xamante ne si ñooy borom peesewukaay yi nee na ko innakum wulliitum am rey fiihi halakat al umamu assaabixatu qablakum nee na yéen de dañ leen a féetale ñaari mbir yoo xamante ne si nee na xeet yi leen jiite woon ca lañ leen arage woon maanaam loolu lépp di wane ne lislaam fonk mu fonk al bay wa shira eh, tax na mu wax ne maanaam ñàkk fonk peese bu mag sax daana ci alak ay nation yoo xamante ne si ñoo jiitu woon Euh, ñi jëli ci Abdullah ibn Umar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dafa ñoo mës a dëgmal si maanaam jublu si na daan ne mbooloo ñi nga xamante ne si yéen a gàddaay yaa ma'shar al-muhajirin yéen ñi jugoon Màkka dikk Madina am na juróom ñoo xamante ne juróom yoo xamante ne si maa ngi mus ci yàlla mu dab leen daal di lim ba ci juróomeel boobu ne mu ne lam yanqusul mikyaala wal misaana illa uxitu bis sinini wa shiddatil mu'nati wa jawri sultaani alayhim mu juróomeel ba mu ne aw nit mosuñoo nekk ci kaw suuf nee na ñi leen di nat ñiy jaay ak jënd di def albayha wa shira di natt ak jaay ba noppi di ca sàcc càccug biir lu dul ne yàlla defal na leen ay at yu bekkoor yu metti ca ñoom lu dul ne yàlla def na leen ñi nekk ci coono yoo xamante ne si coono yi euh, coono yu taruk coono lay doon bu méttee métti lu dul ne yàlla teg na ay dictateur ay attekat yoo xamante ne si ñoo leen di gouverner te iñaan ci ñoom lool ñu leen di atte yilif leen te duñ ca dara albayha wa shira wala muamala almuamalatu almutaalliqatu bil bayhi wa shira ahamiyat bi nga xamante ne si neen am am na ko te loolu ba jamono ji ñu toll boo seetee mag ñu njëkk ñi gëstu yi sax dañ koo dañ koy gàttal ni ci wax ji rek waaye def nañ gëstu yu leer yu wane ne ndeke mag ñu njëkk ñi muy sëriñ si sax dañ daan def bu ñu amee ab ñaare bu fekkente ne ab commerçant ab commerçant dañ daan am ak sulta ci moom maanaam di ko laaj di ko leeral ak yu demee noonu ba gis naa sëriñ yoo xamante ne sii sax dañ daan yebal seen i doom ñii dem ci seeni i taalibe di leen génne li nga xamante ne sii jàpp nañ ne it lu war la ci albayha wa shira te duñ ko xam maanaam ahkaam yi nga xamante ne si duñ ko xam ñi leen koy jàngal waaye duñ yem ca loola léeg-léeg ba yi nga xamante ne si dèjà fexe ba dindi wax na mi demee yu demee ba tey gis nañ euh, euh, albayha wa shira ba tey lislaam yittewoo gu mu ko yittewoo tax na mu digle ak laa biire ci ki nga xamante ne sii mooy jaay ci kanam ki nga xamante ne si mooy jant ñu jëlee si abi saidin al xudri radiallahu taala anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa nee na woon ñi gën ci way gëm ñi afdalul mu'minin ñi nga xamante ne si ñoo gën ci jullit ñi te bu ko waxee lu rek da teg ne lu nekk la ci bëgg a teg mu ne mooy góor goo xamante ne si ne na ku laabil am njaay la ku laabil ci ak jënd la ku laabil buy àtte la waaye ku laabil buy fayu la kon jaay ak jënd léeg-léeg wax ci loo xamante ne si da ngay teg ne daf cee xaw Euh, taral tuuti waaye teewut noonu lay soññe ki nga xamante ne si mooy jaay jàkkaarloo ki jënd moo am ak laabiir te dina léeg-léeg day wax loo xamante ne si bu ñu ko toppee day jafe waaye moo ko waxoon mu jafe lool waaye teewut day wëlbatikuwaat di sàkk loolee bu amee ñi ñi def ci ak woyofal ci misaal dana dikk léegi sax ci misaal lu mel ne xam wax nañ léegi ne mu kallaf fu mu jàkkaarloo mu kallaf ba njaay ma fasu li ñu naan al ijabu wal xabul am muy jaay ma mën a ko andi nee nañ balaa xàcc mën a am faaw day neex day jaay day neex day neex ki nga xamante ne sii moo jaayoon waaye ànd ak loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis bu gën daal ne képp koo xamante ne sii na mbokkum jullitam am njaayam yàlla dana ko xàccal ay bàkkaaram bu ëllëgee yowmal xiyaam loolu li ñu ci jublu mooy diine dana wax dara tënk ko ba nag waaye xam ne loola xaj na metti na waaye nag mooy dëgg su ko defee nag léegi mu daal di soññaat jullit ñi ne ginnaaw yàlla tënkal na leen ko ne nii ngeen ko war a defee mu metti ci yéen su leen neexee ngeen def li naan tanazul maanaam wàcc nga xam ne lii sa àq la diine yow la ko mayoon waaye léegi wàcc nga maanaam def loo xamante ne si ak mbaax la ngir la bii sa mbokk loolu lépp di wane nekkoon ba tey al bay'u wa ci niveau bi ñu ko bëgg a waxtaanee rek ñëpp mën jël ñu lu am solo la. Euh, am koo xamante ne si yoon borom xam-xam bu mag la ñu sëñ Tuubaa di ko faral di tudd lu bari muy al imaamul Ghazali yi miinu ko ci wàllu yii sax euh, ndax moom ci as lañ ko gën a dem na moom it ba wax ne nee na bénéfice nee na naxante la nee na te naxante nee na dañ koo digle maanaam naxante mooy waxante ni ba jaay ko ba am ca bénéfice ba dara nee na dañ koo digle ndax nee na jaay bu ñu koy wax bénéfice moo tax te nee na bénéfice mënee su koo am ci dudul ak naxante xaj na naxante gi li ñu ci jublu jublu ci trian xaj na ni ngay mel ni ngay mën a maslaa ni ngay waxee nit ñi ba ubbi ko ci ñoom rek waaye nag moom imaamul Xasaali yi def naa teg lu am solo waaye nee na nag ki nga xamante ni sii mooy naxante nee na na am axlaax muy jikko yu baax yi ba nga xamante ne si nee na bu fekkante ne kiy jënd si dafa dikk nee na daal di koy jox loo xamante ne sii ëpp na bénéfice bi nga xam ne moom lañ baaxoo am ca marchandise boobee nee na yàlla na ci moom moom nga xamante ne sii mooy jaay nee na mu bañ koo nangu nee na loolu mooy al ihsaan nga xam ne moom sax lañ ko xamee woon muy al ihsaan wàllu tasawuf ak yu demee noonu tey dafa jël àtte fiq ak lu ca aju daal koy ilhaaq ci al ihsaan bi nga xamante ne si mooy tasawuf foofu jël na fi njaay boole ko ci tasawuf kon loolu lépp di wane eh, am solo goo xamante ni si am na ko solo kon léegi nag wax nañ thème bi am solo gi am solo gàttal nañ ko wax nañ eh, jaay barab bi ñu mooy as suuq ak ni ko alxuraan gisee xadiis wax nañ ki nga xamante ni si ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo ñoo jaay ak la ñuy jënd ak a jaay na mu waree dagan ak yu demee noonu loolu tamit dañ ci xaw a gàttal tuuti ndax ku nekk xam na ko te yàlla nattawuñu loolu daanaka suñu dëkk bi ku fi nekk lépp loo xamante ne sii dañ koy tere ci jaay jënd ñaare doo ko def wala boo ko dee def it forop lay ko fiy tere kon loolu day mel ne loolu lu ñëpp kon li nga xam ne moom koy tëjee rek mooy nag yenn ci ay ahkaam yoo xamante ne si dafa jëm ci jaay ak jënd ak diine yéemagum ca yéemu nga xamante ne si ba mu koy tashrian mat na junni at ak ñeent téeméer ak léegi waaye ba tey nii jamono mënu koy weesu ak lu ñu développé développé bokk na ca njaay yi nga xamante ne si diine daanako wax ne njaay moo xamante ne si nee na alxiyaar lay doon njaay moo xamante ne si dañ koy teg njaay moo xam ne dañ cee tànn loon dama ak yow damaa dikk léegi ne la damaa soxla lii nga ne ma bismillah nga jox ma bi ma ko joxee léegi man ma def ci ak xiyaar xiyaar mooy ma ne la lii wuuduwuma ba xam baax na am déet dama koo bëggoon a garder loo xamante ni si diine dana ma ko may moo xam ñetti ñetti fan la wala loo xam moo xam wala lu ko ëpp nga ne ma waaw nga xam ne su boobaa man léegi dama ko garder ba ab digg boo xamante ni si bu jegee jege la ngir ma mën caa natt marchandise moomee nga xam ne ca laay mën a diisoo loolu bokk na ci ahkaam yi nga xamante ne si lu am am solo la ci wàllu jaay ba na ci ahkaam yi nga ni si lu am solo la ci wàllu jaay ba tey it njaay boo koy def na doon loo xamante ni si loo xam na doon loo xamante ni si loo mën a jàpp la mi ni mi ngi nii doog man koo taslim maanaam li ñu leen jébbale ko joxe loolu it bu ñu ko waxoon rek ma ne mu atte boobu rek ma ne sa jeexal waxtaan wi ndax eh, dafa eh, dëgg la ci albay wa shira ula jëm waaye mënees naa wax na it ci al iqtisaad jëm na ci loolu muy boo xamante ni si bu ñu concerné la ba tey téere yu ndaw yi ñu jàng yépp dana ci gis mu naan bëgguñ ko yoo xamante ni si day jaay lu nekk ci am ndox te fekk moom mënu koo jàpp joxe xam ne ñu ngi koy misaale ay jën yoo xamante ne si dafa nekk ci biir géej ñu ne bëgguñ ko ko jaay diine lool lay wax wala mu nekk ci ay dex wala yu demee noonu loolu nag du mbirum conférence moom lu ñu dem ci ay téere toog di ko jàngale waaye li ci am solo rek foofu dama cee bëgg a leeralale tuuti tëje ko muy jamaalu tashri al islam yi maanaam yoonale lislaam ni mu jekkee ak ni mu rafetee ca jamono yonente bi sallallahu alayhi wa lañ woon nit di jaay loo xamante ni si dafa nekk ci biir géej wala loo xam ne dafa nekk ci biir nu mën a doon piscine ak lépp tam doon ay jën te mu mënu koo wàññi te xamu ko te mënu koo joxee loolu rek hadis boobu rek mën naa lijjanti lu bare bari ci Sénégal léegi loo xamante ne si jëmu ci jaay ak jënd dong ndax foo toll yaa ngi dégg nit ñi di ay nappkat yu yuuxu ak a jooy ak kaas lu nekk ñi di ko def ne dañoo jaay géej gi ba àgg nañ ci léegi ay bato yu mag ñooy dikk bu ñu nappee géej gi ba jeex tàkk ñoom duñ fa dese lu dul jën yu ndaw yoo xamante ne si daanaka amatul njariñ loolu borom xam-xam yu bari ci lii rek lañ sukkandiku jàpp ne waxuma la euh, li ëpp ci peuple bi d'accord ci ndax xamuñ lañ joxe ñooñee ba day def loolu fu mu leen jaar waxuma la ci mbiri diine sax ak jaay loo xamut ak li naan bayool xëy na xataa yu demee noonu waaye fi mu ne nii li yéeme mooy suñu sukkandikoon ci xadis bii rek des na lijjanti ba xam bu fekkonte ne lislaam moo ñuy àtte est-ce que loolu ñuy def. ndax dagan na am yéen ak suñu defoon ijtihaad ba xool na dagan ndax am na njariñ ndax dana mën a dagan ba tey ni ko peuple bi di contrer ñu néew doole ji ni ñu koy contrer ni ñu koy ni ñu koy kon loolu lépp bokkoon na ci ak kam yi nga dana ko joxe di ko di ko ba tey bokk na ci li nga xamante ne si nee na lislaam daana ko tere ci ay ahkaam nga xam ne ci la ñuy jeexale daanaka ci atte yooyu mooy bàyyi jaay loo xamante ne si euh, lu bari ci suñu mbokki jaaykat yi ñi di ko def te ba mu ko waxee yàgg loolu tamit doo ko xew muy ngay jaay loo xamante ni si nekkul fi yow ni ku la dégg ni nga koy présenté da ngay waxaale ba jekk laaj njëg ba noppi nekk ëpp doo ko dem di ko wuti ci te loolu lépp xañ na li mu doon ragal mooy alxadar wal xatar ak wax loo xamante ni si nekkul loolu it bokkoon na ci ahkaam yi nga xamante si alislaam daana tere na ci ahkaam yi nga xamante ni si lislaam daana ko tere itam xew lool moom it mu niroog li ma doon wax léegi ne bu ñu ci doon wax mën naa dem ba génn ci njaay mooy fekk sa mbokkum jullit wala ku mën a doon rek maanaam muy waxaale dem ba nga xamante ne si dugg na ca biir waxaale ba soñ ca nga dikk ëppale ko njëkk rek dal di wax kay jaay ne ko léegi mën naa ci nangam dal di xañ ko njëkk ka loolu it islam boole ko boole ko woon ci axlaaqul bayam kon loolu it am solo la loolu bokk na ci axkaam yi nga xamante ne si kon mënees na ko indi tëjee ko te lislaam daan ko wax bokk na ci axkaam yu rafet yoo xamante ne si képp koo xamante ne si yàlla def na ngay yëngu ci commerce ak façon commerce boo mën di yëngatu loo ko jàppee jàppee lu maanaam bidaa yi muy commerce boo xamante ni sii daanaka njëkk ay junni at ña ko daan def nga xam ne demut fenn yi soo ko déggee da nga xam ne mën na laa amal njariñ xaj na mooy lislaam dafa dem ba nga xamante ne si waxatug almushtari yi ci boppam rek waaye dafa dem nga xamante ne si maanaam albaa'i'u ci boppam kam jëlaat di ko jaayal moom sax day tekki moom ay atte yu baree baree bari te am solo ndax danañ gis ñi ne bu fekkente ne nit daf lay jaayal koddaay mi yaa ko war a yor ak lekkam yaa ko war a yor te bu fekkee dafa tukki ak alalam alal ji nga ko jox da fekk alal ji am na njariñ ca la war di woddoo ca la war di lekk maanaam ak yu demee noonu loolu nag moom l'islam sax da ko wax noonu itlaq ko rek teewul am na ay tafasil ndax ñoom seen nizaam bi ñu doon tegu di jaay bokkut ak ni niñ koy defee nii mel na ñoom ko dañ dawut fay ci weer xaj na day mel ne dañ la daan jox dara rek capital boo xam ne da jaay ba am nangam dikk séddoo xaj na looloo tax ñu daan wax loolu kon des na yeneen poñ waaye dañ ko bëgg a yemale fii rek bu ko defee euh, te jéglu lépp loo xamante ne si euh, jaarul ci yoon ndax liñ bi doon xaw naa bari waaye mel na ne ñàkkul ñoo xamante ne si war nañ ca def ay taaliqaat mel na ne ki nga xamante ne mooy mu diirul jalsa bi jekkul ay mulaaxasaat yu ñu ci am moo tax ñu bëgg koo gàttal rek daal ko fii waaye lépp dañ ko tënk rek liñ bi doon ëppoon na loolu ngi jéglu bu baax nag ci thème bi nga xamante ne si comme ni wax ni ma ko waxee mel na ko liñ ci rek dañoo teg ne mooy gënal sëriñ si fi nekk yépp bu ñu a dikk di waxtaanee loo xamante ne si du yitteel benn commerçant boo xamante ne sii ci commerçant tijaara albidaaya ngay def ak yu demee noonu waaye insha allahu taala ginnaaw waxtaanee nañ bii yàlla mën naa def waneen yoon ñu waxtaanee poñ yooyu nga xamante ne sii moom lañ doon wax nga xamante ne si xaj na ñi ko yittewoo ci xeeti commerçant yi fi bëriwul daanaka ay rajo am d'affaires yu mag ñoo koy aajowoo ñu demee noonu kon ñoo ngi ko yemale foofu lépp loo xamante ne si jub na ci ñoo ngi koy sant yàlla lépp loo xamante ne si dëng na ci ñoo ngi koy jéglu te xam ne ci sunu manque la bàyyi ko di leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci diglu bu rafet bi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Seexuna euh, waxtaan wi am na solo lool ba noppi danga ko teg ci manhaj ilmi ñoo ngi la ciy sant bu baax a baax ci doxin wi nga xam ne doxali nga ko ci ci mu rafet lool nga xam ne daanaka buñ koy tënk ci lu gàtt rek ci li nga xam ne sëriñ Seexuna wax na ko mën nañoo wax ne am na ay nuqaat yoo xam ne nii ci la doon waxtaane ba ca njëkk moom mooy alaaqa bi nga xam ne mooy relation bi nga xam ne moo dox ci diggante sëriñ ma sàmba Mbakke ak sëriñ Mbakke Bousso nga wax ci jëm ci li nga xam ne sëriñ Mbàkke doon na ko defal sëñ Masamba ak li nga xam ne it sëñ Masamba daan na ko defal njabootu sëriñ Mbàkke gi yépp waaye it nga dugg ci biir mawduu bi it taxdiid mafhum al muamala wala fiqhul muamalat buñ ko waxee ci boppam mu nekk lu am solo it loo xam ne nii lu ñu war di bàyyee xel la bu baax a baax ndax ci li ñuy gis waxoon nañ ko ci commencement bi ne wala li leeral sax daan ne fiqhul muamalaat dafa jàkkaarloog fiqhul ibadat te doomu aadama wax nañu ne bu fekkee ne dangay dund ci biir àdduna da ci am yoo xam ne ni mënoo caa ñàkk muy nu àdduna te yooyu yëpp lislaam dafa matale lépp ndax alquran waxoon na ne maa faradna fil kitaabi min shay loolu moo taxoon waaye it buñ ko tënkee ci lu gàtt rek waxoon nañ ne yit ci biir fiqhul muamalaat nuqta bi nga xam ne moom ngay jël di ko waxtaane ñu di ko tuddee al bay' wa muy jaay ak jënd jaay ak jënd nag kenn ku nekk da koy def amul kenn koo xam ne nii mën na caa mucc jëm ci loolu ñu wax ci wax ju bare bare joo xam ne ni wax nga ko ci li nga xam ne ñoom yeneen ñoom ñi nga xam ne ñoom lañuy jàpp ne ñoom ñooy ñi ñu gën sax daan nañ ko def ñu mel ne kii ñi nga xam ne yàlla sun borom tabaraka wa taala da leen a tànnoon ne ñuy ñoo gën comme ulul azmi min rusul yeeg ak jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak aaya yu bare bare yoo xam ne nii génnee nga ko ci muy firndeel li nga xam ne wax nga ko jëm ci loole lu mel ne ki wa qaalu ma wa qaalu ma li hada rusul aw ma qaalu ma li hada rusul yaakuluuna taam wa yamshuuna fi l ak wa ma arsalna qablaka min al mursalina ila annahum la yakulu taam wa yamshi fi l aswaq yooyu ay aaya yu bare bare yoo xam ne nii day wax jëm ci ne ndekete jaay ak jëndkat ñu njëkk ñu sax daan nañ ko def waaye it sëriñ bi daan na digal ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñi koy def bu baax a baax ndaxte lu mënul ñàkk la ci doomu aadama jaay ak jënd mënul ñàkk ci doomu aadama waaye yéen nga leeral tamit amuk solo gi nga xam ne am na ko solo moom jaay ak jënd ndax mel na ne loo xam ne nii lislaam ci boppam moo ko dagaral mu nekk lu lool mu nekk lu leer naññ innama axalla allahu albayxa wa xarama arriba la la waxoon ak it ak yeneen aay yu bare bari yu jaay lu dagan la loo xam ne nii di da ko war a def waaye it bërëb yi nga xam ne moom la jaaye jaayee loolu lu am solo la loo xam ne ni sëriñ bi da ko tuddaale mu wax ne ci suux li ëpp li ñu gis ci marché lañ koy defee jaay li ëpp ci liñ koy gis ci marché lañ koy defee te loolu it ci histoire l'islam daan na ko nettali ba tey bu nu xoolee masalan marché bi nga xam ne ma nga ca tuubaa di ko wax suuxul xukaas gis nañ ni ci histoire nabi alayhi salaatu wasalaam daan nañ ko ci fekk muy suuq xukkaas googee nga xam ne jaahili yi fa lañ daan daje di indi ay abiyat ak yu demee noonu ak wax yu bare bari yoo xam ne ni wax nañ ko ci ci tënk lu gàtt rek kon loolu lu am solo la waaye it li ëpp solo ci biir waxtaan bi nga xam ne moom mooy sart yi nga xam ne kiy jaay wala kiy jënd moom la war a làmbool loolu it muy lu am solo lii nga wax ne imaamul Ghazali moo ko wax ci ne doomu aadama bi nga xam ne day jaay la muy bëgg ci lam jaay moom mooy la nga xam ne moom la cay amee te loolu jaaykat bu nekk moom la bëgg waaye nag dafa am ay charte yoo xam ne nii moom la ko tegal muy loolu bu mu la yóbbee ci ngay def loo xam ne nii lislaam bëgg ko ba tax ngay nax doomu aadama wala yu demee noonu moo tax mu ne waaye kon bokk na ci jaaykat bi wala bokk na ci charte yi mooy jaaykat bi faaw mu amee ay jikko yoo xam ne nii jikko yu rafet la te loolu moom mooy tax doomu aadama bi li nga xamee ne bëgg na ko mu mën a nekk te loolu kon bu boobaa saa yu naree am rek bu fekkee ne da ngay dugg ci loolee nga xam ne waxtaane nga ko sànq muy rëcc nga xam ne maanaam di ndax doomu aadama yéeg yu demee noonu te yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam teeloon a wax ne képp koo xam ne ni def na ko na xam ne bokkul ci ñun man ghashana fa laysa minna loolu la waxoon kon loolu loo xam ne nii lu am solo la it loo xam ne nii leeral nga ko jëm ci waxtaan ak it atte yi nga xam ne moo ci jëm yu baree bari yoo xam ne nii leeral nga ko jëm ci jaaykat bi ni mu war a mel ci laa bii rek ni mu war a mel ci euh, joxe loo xam ne nii lu lew la wala joxe loo xam ne nii lu baax la ak yi demee noonu loolu it yu am solo la yoo xam ne nii Sëriñ Seexuna indi na ko ci mawdu bi waaye it li ci ëpp solo wala li nga xam ne def na ko ci ilmi mooy gis nañ ne fiqhul muamalat masalan boo demee ci téere yi téere yu bare bare bu ñu koy jàngalee bay bind al bay'u suñu classe gi yépp dañuy gis ne ci yu mag yi lañuy waxtaane lu mel ni ki xeeti euh, banque yeeg xeeti maanaam sharika yu mag yeeg yooyu yooyu nga xam ne dañ ciy gañe yooyu la ñuy waxtaanee te te te maanaam li ñuy tuddee xam sa jamono wala xam it fi nga nekk ak li ñuy dund loolee dañ koo gis ci waxtaan wi te moom mooy li nga xam ne def nga ko leeral ne daanaka li na ci réew mii nii nga xam ne ñu ngi dund buqaa bi ñu nekk nga xam ne ci iqlim bi Jurbel wala Touba dañuy gis ne li ci ëpp daanaka nekkuñu ay sharika yoo xam ne ni ñu mag la yoo xam ne ni mënees na caa leeral jëm ci loolu nga xam ne dañu koy tëjiilan insha allahu rabbi ba beneen waxtaan bu ko defee nga mën caa ñëw te loolu lu am solo la kon sëriñ Seexuna ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci thème bi ni nga xam ne jàllale ñu fàttali rek ne lii nga xam ne ñi ngi koy waxtaanee am na ci ay ci ay bërëb yoo xam ne nii fa lay jaar nit ñi di ko dégg bokk na ci wax nañu ne mi ngi rajo bu ñuy wax ECAB FM mi ngi koy jàllale wax nañu ne it Touba TV it ngi koy jàllale wax ne nañu ne tamit FM mi ngi koy jàllale ak site boobu ñuy wax seen act moom it mi ngi koy jàllale. ak Daarul Karim TV gi ak Lamp Fall FM ak Jant bi FM yooyu nag ci jublu rek yi nga xam ne moom la académie Daarul Karim jublu rek mooy loolee nga xam ne wax na ko ci ne nasru saqaafati ndaxte ngir ñu tasaare culture bi nga xam ne moom lañu ñu amee dëgg-dëgg yii da ci am solo lool fexe ba ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci yeneen bërëb yoo xam ne ni nekkuñu fii ñi man cee di di ko topp te di ci bàyyee xel ndax loolu lu am solo la lool ñu fàttali rek ne insha allahu rabbi lii di ñëw am na it beneen thème boo xam ne ni moom la war a waxtaane ñuy wax ne thème bi bi luxal arabiya mooy alsiyaasatu bayna al islam wal anzimatu al gharabiyya al nga xam ne mooy politique bayna al islam ci biir lislaam bi ak organisation bi nga xam ne moom la xar bi di di doxe ci jamono jii ñu nekk nii muy thème bu am solo boo xam ne nii it yàlla nañ ci suñ borom fekkee wala yàlla nañ ci suñ borom bàyyi ba nu fekkee ko ci barkab Cheikhul Khadim insha allahu rabbi ñu ne ki ko war a waxtaanee moom mooy Serigne Maodo kon bu ko defee rek ñu gis ne am na benn it euh, mulaaxada wala taaliq boo xam ne nii. sunu mbokk sunu xarit sëriñ Seexuna Mbàkke Moodu Abibu moom moo ko war a def bu ko defee Seexuna faddal mashkura aoudu billahi min asheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim wa kafa ala ibadihi alladina wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi ziyaara bu baax a di xalifa Sëriñ Moodu Faati Xari di ziar bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew yi di ci jiital sëñ Maam Fàllu mi di ko sant bu baax a baax ndax lu mel nii rek moo am solo ay tuut bu ñu nekkee ci mbir da nga leen ciy tette jàpp seeni loxo mooy tax ñoom ñu xaw a ñeme fa ñu jëm ak donte fa ñu jëm xaw naa leen dem kon ñoo ngi sant bu baax a baax ñoo ngi sant it sëñ Cheikhouna Bousso am na solo lool macha allah jàngal nga ñu lu bare bare bare ndekete kat dañ daan wax ne jaay ak jënd ñu bari ñi ko sëñ Seexul Xadim waxee ñu baree bari dañuy jàpp ne li mu ñi mu ñor mooy ñi am xaalis bu bari waaye ñu bàyyi xel ne alquran wala borom xam-xam ne dañoo tënkee jëmmi fiq muy ay xaaj suñ Cheikh naa jaar la ci am ñu ne am na fiq boo xam ne sa pas-pas la lay jàngal ñu koy woowee al uluhiya am ñu ne am na fiq boo xam ne say jaamu yàlla lay jàngal mooy say julleeg aj Makka ak azaka ak yeneen ak yeneen am nag fiq boo xam ne mooy bi sëñ Cheikh naa doon waxtaane mooy boo xam ne sa jëflanteeg nit ñi la lay jàngal ndax nit booy doog a judd ci àdduna faaw nit ñi jëflanteeg yow ndax mënoo mënaloo sa bopp dara dañ lay jàpp waggar la sang la indi la ñu tudd la kon loolu mënoo sa bopp dara li nga fi nekk it mënuloo sa bopp dara ak doonte am nga doole waaye boo fi jóge waatee it lay defaat lañ la defoon kon nit faaw ngay jëflanteeg nit ñi kon jëflante boobu nag moo tax sëñ Cheikh naa ne am na solo baax baax leeral ci ay benn benn poñ lu mel ne euh, takk soxna lu mel ne àtte lu mel ne jaay ak jënd surtout te ñu bàyyi xel ne sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne ñaari bu ñuy jaayante wala bu kii di jaay kii di jënd li fi ak ñu ngi ci benn place ba mën nañoo waxtaan ba keroog ñu fay taxalikoo te bu ñuy waxaale booba jamono booba bu ñuy waxtaan li fi ak jógewuñ jataay ba ku mu neex mën ngaa xàcc ñu seetlu bàyyi du seetlu dara tuuti dañuy dugg fii léegi rek jënd fi téléphone lañ lay wax mooy boo génnee boutique bi perte nga te li fi ak yéen a ngi ci benn jataay mën ngeen a waxtaan su ma àndeek yow damay jël su fekkee d'accord moom ma xàccaat muy lu solo xam ne mat nay bàyyi xel ñaareel bi it li nga xam ne mat nay bàyyi xel it muy yàlla dafa waxoon ne ci suratul baqara la man yàlla maa daganal ci yéen ngeen di jaay ak a jënd waaye maa xaraamal ci yéen ngeen di lekk riba te bu ñu waxee riba yaatu na lool ba daanaka day aaja ab buntu waxtaane ko waaye li gën a gàtt rek ci riba rek mooy lekk alal joo xam ne boroom alal ja d'accord du ca lekk nga kon bokk na ci loolee kon li ci jaadu mooy su ma la joxee junni bëgg a jënd nangami kilo nanga ma jaay nangami kilo waaye bu ko wàññi léegi nag ñëpp daanaka ñoo ne dañuy def ci système bi Amérique bi yam ah, seen xaalis bi tudd dollar saa suñ bëggee jënd dañ koy wàcce lool ba mu suufee masalan benn dollar day léeg-léeg day weccoo juróom-ñetti fukk bu buñ bëggee jënd mën nañ ko andi ba ci juróom-ñetti fukk yemale ko ba jënd liñ soxla lépp suñ bëggee jaayaat dañ koy yëkkati ba mu àgg téeméer ak ñeent wala téeméer ak fanweer muy tappale yoo xam daanaka moo taxoon yàlla wàcce woon suuratul mutaffifiin bokk na ci daanaka ndax xamoon na bis dana ñëw ñu koy jëfandikoon moo ñi nga xam dañuy teg ñaari balance ñaari balance man su ma demee yalwaane bañ sarax ma fanweeri kilo ceeb su ma ñëwee di leen ko jaay bu ñuy natt day day day daanu ba ba mat sëkk dañuy jël sama ceeb sotti ko ci seen balance natt ba mat sëkk ñu fay ma xaalis waaye ñoom bu ñuy jaay nag ñoom teg sotti ci bu xawee daanu rek ñu gaaw këf nga xam ne ko day mel ne ni américains yi daan ñi yéefal di jëfandikoo ci tappale loolu la ñu baree bare war a jëf di jëfandikoo fii te yàlla wax na ne mbugal leen mbugal la lay tëkkoo ñoo ñii waylul la jëfandikoo kukku wala aw xuru ñuul kukku wala sawara su tàng jër lu mu ci mën a doon ñu bare bare firi nañ ko nee na képp ku jëfandikoo loolu ala yadunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azimin yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin ndax day mel ne bu ñu koy def dañuy fàkkane ne bis dana ñëw lañ defoon lépp ñu yaa ñu jaaraat ci muy loo xam ne mat nay bàyyi xel te ñooñu day mel ne moom la tubaab moom la arab di wax dañuy natt ci ñaari nattukaay nattukaay bi ngay gëndee ak nattukaay bi ngay jaayee bokkuñu muy loo xam ne mat nay bàyyi xel bu baax a baax dañ seexu naa leeral na ci lu bare bare ba ci des si leeral na yit ne waxaale mat na ko bàyyi xel léegi dañuy mel ne am na lu ñuy wax bayxu masalan damay jaay dara ànd ak sama benn xarit boo xam ne wóor na mën a jënd waaye tappale moo tax mu ànd ak man ngir su sëñ Seexu naa bëggee jënd téléphone bii ma yor dama naan téléphone bi dama koy jaay moom mu ne fay naa ci fanweeri junni te moom bëggut a jënd waaye da cee fay fanweeri junni xam ne sëñ ngir bëgg sëñ Seexu naa a fay lu yées fanweeri junni nga xam da xiirtal sëñ Seexu naa ngir mu jaay ngir mu jënd ko dafa xaraam ni ki noonu it may waxaale mu wóor leen dem naa bay bëgg a jubóo ki may jaay nga ñëw daal ne ah sa waay bàyyi ma fa la téeméer nit ñi dañ koy jëfandikoo di ko lekk te lu baaxut la muy loo xam ne lu mat di bàyyi xel la ndax jaay dañ koo def mu nekk lu sacré loo xam ne euh, ni yàlla daganal da ngaa war a julli di jaamu yàlla di lekk lu lew noonu la waxee da war a jaay ak jënd ndax li nga yor moom la kenn keneen dafa yor loo xam ne wuute na moom loolu masal yàlla damay jox xaalis jox la marchandise koo jox na ma xaalis jox la marchandise danga danga maa war dama laa war a jox xaalis yow nga ma marchandise kon ñoom ñaar dañ ko war def nag mu nekk équilibre muy bi bi bi bi taswiya da nga may jox li ngay jënd ma jox la li ma lay jaay kon moo am solo loo xam ne ma lay bàyyi xel mooy wax ma ne jaay dañ ci sartal nga ma ma ne la ah masalan la big bi laa koy jaayee nga teggi teg ca moom la olof tuddee fit ci fay wala fet ci fay dangay génn sa xaalis joxe ma jox la li ma lay jaay waaye am big bi fii ba déwén dinaa la jox ñaar fukk wala nga dem am ñaar fukk ngi nii waaye nag ma indi sama big dañ koy tere loolu yàlla bayul raay ndax dañuy bëgg toujours mooy li ngay jaay na doon loo xam ne mën nga koo teewal muy daam soo loo xam ne mat naa bàyyi xel waaye jox ma fukki kiloy ceeb bu nawet bi daanoo ma jox la fanweeri kiloy pepp lu mat a bàyyi dañ koy jàppee loo xam ne riba lay doon ndax ñaari mbir yoo xam ne ñoo bokk benn xeet la kenn sëñ ci ëppalante bi ci desit loo xam ne mat nay bàyyi xel léegi muy damay am sama place di jaay ay tiise am ku nekk sama wet di jaay ay tiise julli jot mu jóg dem julli ji ne ma xoolaale ma sama place bii na nga ca xool yàlla ndax kenn mën naa ñëw romb sama place man dem ba ca place boobee ñu ma dénk ne ma laa bëgg te fekk am naa bu mel noonee li nga ci sàmm yàlla mooy dañ laa dénk na nga jaay ca place bu jàmbur ba borom bu bëgg waaye bu mu la ne ab ci tiise bii laa bëgg nga nekkoon am naa ko kaay ma jaay la sama place te fekk dañ laa dénkoon place ba te yàlla dafa wax ne wa awfu bil aadi inna al kon bu ñu la wóo bu ñu la bu ba dénk la dara ngal la da ngay matale kóllëre ga tax ñu dénk la ko muy loo xam ne yaatu na loolu am na solo masha Allah ndax sëñ Cheikh naa tas na ci lu bare bare te it ab la ci talaata jot dañoo gëm ne dañ fiy jëlewaat ab bind bu bees talaata bu jot dañoo gëm dañ fi war a jël dañ fiy jëlewaat ab bind bees moo tax bii passé jàng nañ ci lu bare bare bare ci miraas ni ñuy war a doon tey jii it masha Allah suñu busóobe ak donte koor gi xaw naa metti jàngal nañu bu baax a baax ci naka la bu soobee yi ak njaayee neeg faale neeg ndawee ni ni nga xam ne ñu jaayee ko jënd ndax ndawee ni kat dañ doon jàpp na dañuy jaay rek ak jënd ni leen neex ñu jaay jënd waaye naka lislaam da cee teg ay charte yoo xam ne kenn sañ koo xëtt wala boo ko xëttee dafa am ay yar bu war a dal sa ginnaaw ci saasa moo tax it ñu ngi koy sant bu baax ndax gëstu bi sonn na ci lool te it jéego yi tamit xam naa yaatu waaye it duñ ne ko jëf ndax it dañoo nekk ci tool boo xam ne Sëriñ Tuubaa tool boobu la bayoon maamam sëñ Mbàkke Bousso tool boobu la bayoon sëñ Masamba yi tool boobu la bayoon muy tool boo xam ne nit ku xam da ngaa war di wër di xam le ak donte sàkk wuñ ci kaw da nga sàkk wuñ ko ci yow da war di wër di xam le kon duñ ne jaay jëf waaye naan la waaw góor yàlla yàlla yokk xam-xam bi te dëgëral taxawaay bi te yàlla defit ñu ngeen bokk ci mag ñi nga xam ne ñoom la lislaam di sagoo te bañ a bokk ñi nga xam ne ñooy sagoo lislaam muy la am solo xam ne insha allah ñu ngi sant baax di sant baax a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 ñaar suñu borom mooy ñu fekk waa talaata ak jàmm ñu doole sant yàlla suñ kilifa yi nga xamante ni ñooñ jox kàddu gi ci jataay bi di ñu sant loo ñu ko teewe sëñ Saliou Mbacke mi ngi nii léegi la egsi sëñ Abdourahim mi ngi fi toog ak sëñ Baye Cheikh ñu sant ñoom ñëpp ndax ñooy kilifa jataay bi ñu ngi sant mbokk yu jóge ba Touba. ñëw fekk si jataay bi ànd ko ñun mën cee wax suñu Murtala Mbàggeem suñu Abdou Fatah Fadilu mu ngi fiy doon di doolee sant nag euh, sëñ Seexuna Buso ci mm, thème bi du mu ko doxale ci wàllu njaay defe na ko noo xamante ni nu rafal la moo kawee njort ni ko séentoon doxale na ko noonu ñu ko ci sant bu baax te di ñaan yàlla suñ borom koy ñu wax lépp loo xam lu ci am njariñ la ñu mën koo dégg jariñ doole sant sëñ Cheikh Cheikh Khadim Mbacké mu doon modérateur sëñ Cheikh naa Modou Habib sant bu baax baax di sant comité organisation bi yore wàllu ndogu yi mu mën cee jiite ku mel ne sëñ Mamour Ndaw moom it taxawaay bi rafet na lool waaw loolee sant yàlla bu baax nag bi ci jiite sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xamante ni lépp daanaka ci moom la aju ak mbokk mi ci àndal yépp ci taxawaay bi ginnaaw bu mu ci amee ndigal ay kilifaam ba jox ko ci ndigal mu koy doxaleen na mu gën a rafet te ñu ànd ko moom ñu koy sant bu baax di ko ñaanal mu gën ñu gën a mën taxawaay di ko gën a defee na mu gën a rafet ñu koy sàkku seen kilifa ak ñu leen di joxe ci ñu gën ko